انا سخنا جارا بو دون نيك با ماغات مبا مو ام نين فكات مبا مو جاب ني دافي توك با كون كون فونو جيم واي بام جوغي رك خامي ليغي يالا ورنا تيرا ليغي يالا ورنا يالا كين دوكو جوخو ديس يالا كين دوكو موجي يالا دنج كوي جيكي فاستبخوا الخيرات لا يالا واخ سابخوا الى مغفرة الى مغفرة من ربكم لا يالا واخ بو سيتي تي وا كيرم نيو تيد ني دي امهات المريدين كين كو تي نيك ليغي نا سيغ توبا ليغي بو خامي بي مانا كو ماي دوم دو باخ te dara ma taxeet ñaar yi ngay def ci Touba ca kanam du dara ndax bis bu nekk nga def ko ci natt yi ak ndey dikke yi ak jabara yi ak leget yu daw yi ak yu dul dara yu jëmul fenn di ko jënde ay connexion di ko def ci lu yàlla gërëmul te boo koy def ci si Touba Ca Kanam rek di ko fàtte li gënal yàlla ci jëf mooy jëf joo xam ne boo ko defee fàtte ko ndax ñaar téeméer macha allah wax dëgg yàlla amul solo te dara ma taxeet ci lu jëm ci sëñ Touba pas-pas bi rek ci am solo am na bis ci njaareem am na bis ci seexi borom Touba yi ku doon ku doon siyaare ji borom Touba Jolof dajale ay addiyaam ak mbayam ak li mu yor ci xaalis liquide. li mu yor ci bagage li mu yor ci suukar li mu yor ci baraay li mu yor ci piis dajale lépp ba mu dem angaar mu ne waa këram génn leen looy am indi ko damay siyaar yi borom Tuubaa kenn ku nekk sa jëf nga am am ci ay soxnaam ku génne mbubb mbubb moo xam ne mi mbubbum jigéen la ñu dog ko dogub jigéen te sol nañ ko sax du mbubb mu yees nga xam ne sol nañ ko ndax xam nga léegi la ko daay yomb soxna soosee génne mbubbum jigéen mu ñu dog dogub jigéen te sol ko ba noppi mu dikk jox ko borom këram ne ko joxaaleel ma ko borom Tuubaa sëriñam boobee téye ko waaye xamul da ko ko war a delloo xamul da ko war a yóbbu ndax tedd gi sëñ Tuubaa tedd fi kanamam ak mag gi sëñ Tuubaa mag fi kanamam ak mbubb mii rek lim nu loolu xaw a xeebu ndax mbubbum jigéen la muñ dog dogub jigéen te sol nañ ko ba noppi waaye ginnaaw tudd na ci sëriñ bi sañatu koo delloo mu yóbbaale ko ba mu demee Jolof joxe addiyaam yu am solo yooyee fa moom la mu yor ci ay sëfi gëléem ci dugub ak xaalis ak yére lu baax lépp ba noppi daal di teg mbubb ci wetam rek tut waxul lu ci jëm sëriñ Tuubaa laajal ko boppam ni ko ndax yoroo ab yóbbante yoroo beneen yóbbante mu ne ko ah kay mbàkkee am na lu ñu ma fi yóbbante woon lu jëm si ceew de daal di koy jox yëkkati mbubb mi ba koo buugan sëñ bi ndànk sëñ bi ni ko jógal taxaw tàllal ko ma xool mu jóg taxaw fi kanamu borom Tuubaa tàllal mbubb ma muy mbubbum jigéen muñ dog dogub jigéen te sol ko ba tey sëñ Tuubaa daal di muuñ daal di ko ni daggal teppi ko daggal ma ci ñaari kaala mu teppi mbubb ma daggal ci sëñ ma ñaari kaala mu teg ko ci kawam kaala woo ko kon jooju jëf yegg na am na ku ñu wax sëriñ sëriñ Moodu Anta Mbaj bàyyi koo na ñoom rek di siyaari ji borom tubaa gànnaar di dox ba yegg ci genn ker gu mu war a dallu teg ay bagaasam dallu tuuti ngir bëgg a jógaat as cox na fekk ko fa gis ko gis ni mu mel xam ni kii murit la soxna si di lenqanteeg moom ba laaj ko ba ni ba laaj ko fi mu jëm mu ne ko gànnaar laa jëm damay seer yi boroom Touba soxna si taxaw di ko xool ba yàgg bu daal di kot kot yi génne lu mel ni puso génne puso ni ko man dey lii rek laa yor waaye joxal ma ko borom Touba sama addiya ji jox ko puso yóbbante ko puso ci borom Touba mu daal di koy jam ci kaalaam laxas ko ba yàgg gànnaar joxe ay addiyaam toog ab diir waxul lu jëm ci puso bi. ba yag mu bëgg ñaanu ñaandu sëñ tubaa ne ko ndax yoro leneen mu ne ko ah ah kay xelam dem ci puso bi mu ne ko amna soxna mu daal di koy génne mu daal di koy diddi fi mu ko fasoon tàllal ko borom tuba mu ne ko ñaari loxo mu ne ko soxna sëriñ ca kër ga ma doon dalloo la ma fekk jox ma puso bi ni ma jox la ko mooy adiyam lii rek la yor sëñ tuba daal di ko di tawit ni ko wax nga dëgg ndax jooy yi puso bi doon jooy moom laa mënatu la buñ moo tax ma soññ la jooy yàkkamte yegg si ban borom tuba rek la kon nag liggéey baa gi nii na ci kenn ku ne def loxoom ndax boo ci defee sa loxo lim lay jural te liggéey bii gis naa ci ay résultats yoo xam ne yii mën naa jural sax loolu ñuy wax euh, civisme ci dëkk bi Touba ci Kanam mën na koo jur ndax boo gisee dëkki taax yi ndaw ñi bu ñu meree nguur gi di yàq télé cabine téléphone yi di yàq oto yi di toj lamp yi seen dara da ca demul waaye nit ki lu xam dem mu xam ni li sama dara dem na ca bu yaq du ko yaq bu ñepp duggalé seen loxo ci liggéey ci tuba ci kanam di def dara kon destruction dootu am ndax képp koo xam ne kii yaa ngi yàq ci bedd mi di toj taax yi kenn du yàq loo moom kenn du yàq lu sa dara dem te romb dara ab hôpital wala nga romb ab forage wala nga romb dara mu wóor la ni lii kat tuba ci kanam ñoo ko fi def te mas naa def sama benn junni lu mu néew néew loole dana tax ba bu ëllëgee nga am ca fierte nga nga yëg ca sa bopp yëg sa bopp ci doxuk dëkk bi ak jëm kanamuk dëkk bi waaye waa Touba ca kanam ñëw ngeen ci kër koo xam ni seet si ngeen koo xam ni kii jigéen la de naam gone la itam ci zahir waaye waxul ni su ma doon góor muy soxna may mun a tumi moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa kii ngeen seet si tey taalibi burit la xamna nañ nag sëtub sëriñ tubaa la di mbokum serigne touba ci ay ciosanam waye ab talibé la de talibé la bo xamni bi lima xam ci momako ak su néew xam ni jigen ju jàng alquran la mako ko seereeg sama bët dana jàng xassay ci borom touba yi dana yor kurs di tuddu yàlla ak julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam soxna may mi ngeen ñëw ci mom serigne touba rek a yitteem ko gis mukk muy dox ci dara lu jup lu jup ak lu bàyyum gërëm ndax serigne Moussa serigne sëñ mi nun dongo yii di njabootu borom Tuubaa gi ñoo xam ak lewetam waaye njabootam gii dañ koy daw di ñuy daw sawar ak gaynde xam nañ ne lu baax rekk kuy téel lu baax dong koy téel ku jub rek la mën a àndal soxna may mii liggéey la def muy crédoom daan daw dooleem ak ñaqam ba bàyyam doonagul Seex Muhammadul Bachir doonagul Sëñ Muntaxa la takkoon ndigam ndigam di liggéey daana dem Italie ni fa ñëpp debe waaye daaw fa dem ngir di wëndeelu ca daayire ak laaji addiye de déedéet danaan ngàbb ay valisam di dem ci réew Suisse yi di jënd ay bassin di jënd ay piisam di indi itali di ko jaay waaye musta dal ci génn kër goo xam ne giidu bu ko sëñ mu taxawoo guddi du ko mën a may jox ki mu dalal musta def koo xam ne kii fu la neex yendu fu la neex fanaan ku la neex wàcc këram ku xam boppam a ngi ku xam fu mu war a yendu ku xam fu mu war a fanaan di xam fi muy dal di xam ñu muy jëflanteel ci taalibe baayam wala mbokkam wala ku ko siqal wala jigéen ju yor daay def soxna jaara soxna si yàgg naa bëgg liggéeyal sëriñ tubaa yàgg na koo liggéeyal daay def maam jaara bu mas a dem di satub maam jaara dëkk daaru minam day jënd kartu daayira di teg boole koog luñ ca warlu mu di ko warlu fu mu mës a dem génn marchandise am di ko jaay bu fa dajee kuy jànge jàng xasaayit lu yor dana ko ko jox barki sëñ Bamba bu dee kuy waxtaane borom tubaa lu yor dana ko ko jox di dagg ay piisam di maye di génn xaalisam di maye sëñ Tuubaa dem yitteem jigéen la de waaye këram a ngi nii ci ginnaaw Cheikh Mouhamadul Muntaxa ci ndigalal baayam mu yor ay bokkam yor ay dongo yor ay gone yuñ ko tuddee ak gone yuñ ko jox di leen jàngal alxuraan dara duy téem lu dul téereb yàlla bi muy jàngal aw nit alxuraan di ci def téereb yàlla bi moom soxna may mënatu mi ngeen seet fekk si ku bëgg lu baax la ku nangoo sonn ci lu baax la kon nag bu fekk see waajuram wii di soxna bintu muy jëwriña liggéey bi di doomi sëñ abibu imam fas yéene ànd ak moom liggéey bii na seen njortu rafet yéen waa daa yéen waa tubaa daa tubaa tanzil daaru tanzil gii nga xam ne fii la seex muntaxaa dëkk dëkk ak yéen ngeen di njabootam di ay dëkkandoom na ngeen jàppale soxna may ci liggéeyam bii na jëm kaw na ci am ndam bu baax a baax a baax ndax waa Touba ci kanam gii de lu ñu def ci dëkk bii liggéeyal Serigne Touba rek ak bëgg sax moom mun muntaxaa dolli ko am ndam moo tax na ngeen ànd ak moom bu baax soxna sii dara du itam lu bëgg a liggéeyal borom Touba loolu rek lay xaalaat loolu rek lay xool. fu mu ko liggéey rek lay xool foo ko fekk mi ngi yëngu ci dara di yaxantu ndax bëggul ni yàcc bàyyee boppam kenn mu di ko dimbali kuru yàlla ak sëñ tubaa kon nag na ci ñëpp jàpp tubaa ci kanam gi yàlla na ko yàlla jëmee kanam man day daaw jéeg dama fee daaw daaw jéeg dama fee dem itali dem Amérique dëkk bi wax ñaara police julli fa ci jumaa ka ma jiite di Ibaadu ba julee ba nopp mu di ma xool am ci man cofeel nu wëlërante maag moom mu am bis mu woo ma fii ne ma man de sëñ Bouchra damaa bëggoon a xam foo xam ne fii su ma fa tàbbalee sama ñaq dana dem ci liggéeyu sëñ tuba ma ne ko ñaari compte laa ci xam foo xam ne fii yow mii di ibadu Rahman bëgg Cheikh Mouhamadoul Mountakha gis li mu liggéeyal sëñ tuba ci corona bii tax nga bëgg a dugal saw ñaq ci liggéeyu sëñ tuba boo ko dugalee ci tuba ci kanam dana dem ci sëñ tuba boo ko joxee Cheikh Mountakha ci loxo mu dem ci sëñ tuba mu yónnee ma ñeen fukki junni moom ibaadu boobu ne ma ñaar fukki junni bii kon defal ma ko ci Tuubaa ci kanam ñaar fukki junni bii tegal ma ko joxol sëñ Muntaxa yàlla dimbali na ma ci barkeb sëñ Tuubaa ba ci lu ci ne ànd naa ki seere defal naa ko ko foofee ba ma woo sëñ abi bu muy ni ko dama laa bëgg a jox xaalis bi wax ko ni mu demee dani ma déedéet man du ma gis xaalis sëñ Boussra dama ca siège ba nga dagg ko lépp ay reçu yónnee ko ko dinaa ko yónnee wakaal ba mu xam ne liggéeyam yegsi na liggéey bu juba ngii liggéey bu transparent ngii liggéey nga boo xam ne bii duñ ko dajale kenn di ko lekk kenn di ko foye kenn di ko taxawaaloo luñ ci def ci sëñ Tuubaa la jëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barak jaajëfal baax sëñ Busra kàddu yi am na solo lool tey ñu ko daan teewlu te daan sonn ci liggéey bi seen xel gën naa dal ndax njariñ li nga fi lim lépp ci liggéeyal sëñ Tuubaa ñu la jaajëfal baax baax dina ñaan suñu borom gën a dëgëral xam-xam bi baax a baax daa nga leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen siyaare du nuyu bu baax njaboru seex Mountakha gi fi teew sëriñ Koso ak sëriñ Mamor ak njaboot gi ñëpp euh, ñu ngi bëgg a jublu dëgg si waxtaan wi ndax suñu ëpp frage ngi nii dana am ay kàddu yi am solo yoo xam ne dana ko jàllale waaye sànq sëriñ bi damay wax ne barab bii dafa dafa nekk barab bu jig Touba kanam ndax ñu ngi ko waxoon léegi la liggéey bi mu soog di tàmbali bi ñuy tàmbali liggéey bi te ñëwoon fii Cheikh Mountakha fekk ko fi mu bi ñu ko leeralee liggéey bi mu tàmbali ko ne sa bopp ba ba noppi teg ñu si aw yoon fooy duru du Touba Ca Kanam suñu Muntaxaa moo ko rëdd ndax dama ko rëdd mooy ba mu xamee ni projet bi doxe yëkkati junni dagg carte membre yëkkati ñaari junni ñeenti téeméeram joxe wutaat juróom-ñeenti murid ku ne ma defal loolu ba noppi soññu nañu kat li ñu def dana barkeel dana am njariñ te ndool leen lay doon ci bépp murid nga dégg su kon murid bu nekk la nga nekkoon nag sa nekk waaye nag da nga siy dolli Touba Kanam waaye na kàddu yam sa tegaatoo nag mooy yi mbat xel si képp kuy dugg si Touba Ca Kanam te mooy faaw ñu koy doxal jox ko yitte ak jot suñu Abdou Fatah mii suñu ko laajoon lu yitte ak jot moom si Touba Ca Kanam dana ko xam ndax jàpp naa bi Touba Ca Kanam tàmbalee léegi place am moom dana ko jooy ba ba tàyyi ngir jox liggéey bi yitte ak jot kon loolu suñu ay wax ne la suñu Muntaxaa defoon daggal boppam daggal juróom-ñeenti moom mii tey fës naa yéene daggal suñu Muntaxaa fukki nit ak ñaar ba def na ko ngir fas si ñaan Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi téwér delloo ko njukkal Sëriñ Maam Cerno mii feelu ko dafaat ni bàyyam defoon moom it dagaar lu mat fukki nit ak ñaar ku ne douze mille ngir fas si bàyyam yàgg Sëriñ Muntaxa yàgg fi téwér kon loolu la doon leeral te suñ boo xam ne ñi fi nekk ñëpp na nam roy si loolu ku ne donte aw ñaar téeméer na nga ko dagg ngir delloo njukkal Sëriñ Muntaxa te ñaan mu yàgg fi téwér ndax liggéey Touba ca kanam bi kat fu mu yeggal ak Sëriñ Muntaxa la njëkk muy nekk Seexul Xadim kon loolu ñu xamee ko noonu di santaat baax soxna yi di wax ne ñi nga xam ne ñooy fas di ànd ak soxna may liggéey bi jotaay bi mel nii soxna may dana ko amal chaque le huit waaye nag booba ñi mu liggéey bi nag ñi nga xam ne ñoo nekk ay collecteurs ak ay collectrices am jox carnet ne bu le huit jotee si weeru tubaab nga ngeen dajal la ngeen am la kees jotee ñu dajale ko jébal ko soxna bintu mu def ko si compte Touba ca kanam yi kon ñu ñu ñu xam ne liggéey bi ni ñu ko nosee faaw day am ay jëriñ yoo xam ne ñooy taxaw liggéey bi kon dañuy daal di jébal kàddu gi suñu Abdou Fatah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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi sama kilifa yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax den siyaar maa ngi siyaare Sëñ Abibu siyaar bu gën a sell gën a tey gën a dal di ko jaajëfal bu baax di ko ndokkeel ci teewaayam bu rafet bii di ziyaare mboolem kilifa yi mu àndal ca ànd ak ñoom ci liggéeyu Touba ci kanam bi ñu ngi ciy gendiku léegi sëñ Cheikh Abdou ñu ngi ciy gendiku itam sëñ Abdoul Fatah mi nga moo doon wax léegi ak sëriñ Baara ak mboolem kilifa yi ñu àndal di siyaare soxna Bintu itam bu baax moo ñi nga xam ne ñoom itam ci wàllu jigéen ñi ñoom la moom la moom la àndal ci liggéeyu Touba ci kanam bi ñuy am mbégte bu baax xam naa daanaka xamuñu sax luñ ci wax ndax nit moom bu toogee ci kilifa. ak wax ju rafet ji nga xam ne sëriñ Abdul Fattah wax na ko léegi day jafe ñu teg ci ay kàddu yu am solooti waaye du teye ñu feeñal rek sunu mbégte ci agsi ji fi barab bi ak jataay bi ak diir bi nga fi am xëy na barab bi moom daanaka moo tax sëñ ñoo ba jël kàddu dañoo mënta ñàkk sànni ay kàddu rek waaye daanaka bu sa kilifa toogee sëñ Abdou Fatah wax ci wax ji toll nii daanaka wax ji day mel ne dafay ferenk laayu waaye nag ni ñu mu demee ci barab bi tax na mën ngeen ñàkk sànni ay kàddu ci turu Maymunatu mi nga xam ne moo tax tey ngeen ñëw fi daje fi ànd ak kilifa gu tedd gii moom it mu ànd ak ñi mu bokkal sëñ Muntaxa ñëpp ci ak bokk waaye ci ak taalibe waaye itam ci ak jege ñaale ndax bi ñëwee fekk ko fi fekk fi soxna Bintu fekk naa fi soxna Ndey Mbàkke fekk fii waa daara ji donc yi nga xam ne ñoo féetewoo fii ci daara ji ñoom ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ci njiital Cheikh Ibrahim Cheikh Ibra Fall kon nun duñ man lu dul jaajëfal leen ndokkeel leen sargal leen sant leen gërëm leen te béggee leen itam nag béggee jataay bi bu baax béggee jéego yi nag bu baax a baax itam ndax ni nga ko waxee léegi sëriñ bi fii ngeen ko fekkoon mu am kàddu yu mu leen waxoon te kàddu yooyu bis bu set mu di ko gën di fàttali waaye bis bu set mu di di ci gën di teg seen bët kon nag liggéey la boo xam ne fépp foo xam ne toog nañ di ko fa waxtaane rek waxuma ne sax ñu di yëkkati seen alal di def waaye fu ñu koy waxtaane rek xel dafay dal ndax dañu xam ne yéen baa ne yàlla dafa ko wàcc kon noo ngi dalal xel ci loolu bu baax a baax di xam ne barab bi rafet nañ jot ci barab bi lool waaye gën nañ ci rafet njort it ci ne nag yërmaande suñu borom tabaaraka wa taala ak yërmaandeem ak njëggalam dana wàcc bu waax a baax liggéey Touba Ca Kanam nag day liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la liggéeyu sëñ Touba la liggéey la boo xam ne dañ ciy seen dañ ciy sàkku tiyaaba di ko ci seenu tey ak ëllëg liggéey la boo xam ne it dañ ciy defar su doxee ni àddina diko defal dëkk bi nga xamne amuñu lool mom dafa lañu dëkk waye mu doon leneen nak mu doon ab révolution révolution bo xamne dafa am solo ci aduna ndax ñu bari dañuy wax ne dekk jaamur sa dëkk kenn lo fekk la defal defaral te am na loo état sax mënu ko donte amna na waaye bu amoon yéeneem sax ndax sañ na ko bu amoon yéeneem itam sañ ko itam ndax danañ ko ci bàyyi kon révolution bu la boo xam ne lu am solo la xam ngeen ne nit lu ne dafa am lu koy tax a jóg ku bëgg a jege ku bëgg a àgg ci yàlla da ngay nangoo jaamu yàlla waye ku bëgg am indépendance mom sa bop da ngay nango liggéey ta bañu a yàq te di ko def fa nga di def kon Tuuba ala kulli xaalin ak lu fi nit mën def ak ku mën a doon waa Tuuba ñoo war a taxaw góor-góorlu la ci ëpp ñu defal ko seen bopp defar bañ bëgg ak na mu bëgg mu mel waa Tuubaa rek ko mën a defal seen bopp keneen ku koy def da nga leen cay fekk rek leen ci dimbale te loolu Serigne Saliou jox nañu ci misaal mu bari ña jiitu ci ay kilifa jox nañu ci ay misaal buñ doon seet tey fii lu fi gën a yàgg ci cosaan wala lu fi ëpp wala dëkk bi dañuy wax ne jumaa ji te jumaa sëriñ bi sunu ñaar dërëm yi woy kilifa yi sunu maam yi sunu ñaar dërëm yi ak seen ñett dërëm yi ak seen juróomi dërëm yi ak seen ñaar fukk ba ak juróom-ñett ñett wax jumaay Tuubaa ñoo fi indi raay bi leneen lu fi taxawit looloo koy taxawal kon liggéey boobee nga xam ne moo amoon te muy liggéey bu rëy bu diis boo xam ne ñëpp xam nañ ne liggéey bu diis la ndegam moom la loolu yi mënoon a taxawal ci ab fulla ak fayda bu fekkente ne liggéey bi àdduna dox na ba agsi fii itam fulla ak fayda jooju bu dañut dana nekk révolution boo xam ne mën naa def lu ëpp loole itam ndax duñu wax ne tey la xaalis gën a yomb waaye lim bi ñuy tudd tey la gën a bari te dëgg la soxla yi tey la gën a bari waaye lim bi ñuy tudd itam tey la gën a bari waaye mbooloo mi itam tey la gën a bari ndax xam ngeen ne ci statistiquement maanaam ci wàññikaayu doomu aadama buñ ñu ko xoolee dañ gis ne tey la doomu aadama ëpp doomu adama nag bu xasee bari doomu aadama la wax du ñu du ñu wax mu du ñu wax bu xas doomu aadama xasee bari rek bari na nit ndax population lay topp du topp murit bi du topp leneen kon tey la doomu aadama gën a bari li muy ñuy tudd tey la gën a bari tolleekat ab lim bu néew bu ko sété ci lim bi am légui ci àdduna si lim bu néew ko defal kon liñ wara def nak moy ñu gëna taxawaat gëna a takkuwaat xam ni nga nek moy lan xam lii nga leen li wo moy lan xam ni ngay wombari di moy lan ñun ñëpp ñu gën a takku nag waat and ci ak yow taxawal ko bu baax ba lepp lo xamne ne soxlees na ko fi ñu man ko fay def ci dëkk bi fi te yoonu kenn du ci nekk ñu bari ñu koy wax ci àddina si boo demee tubaab mën na yor seen bopp tubaab mën nañoo defal seen bopp tubaab mën nañoo dem ak seen bopp waaw man nañoo dem ak seen bopp d'accord waaye dafa am luy tax ñu mën a dem ak seen bopp te mooy lii ngeen woote ñu fullaal te kenn ku nekk def ci lépp lu mu man maanaam li ngeen li ñuy laaj bariwut waaye waaye ñu fullaal ko nag ndax li nga wax léegi 60 millions bu ñu ko génnee ci ay 1000 lolu lu doy war la juróom benn fukki junni nit ñoo koy joxe juróom benn fukki junni nit ñooy dajaloo ànd do nga mën a am 60 millions kon fulle moo ko mën a moo ko mën a def fàtte yeeg xat-xati jamono yeeg yépp waroon nañoo am fulle ñu toll du ci feeñ ndax loo xam ne boo ko defee doo ko yëg du metti ci yow ba noppi dana la amal njëriñ loo xamante ne njëriñul biir la ak njëriñul biti te njëriñul biti li képp jar na ko ndax ab révolution la boo xamante ne ku deful ne yow am kon nag liggéey la boo xam ne daal sëriñ bi soññee rek moo ci war te nit ñi am ci fulle jiñ ci war a am bu baax def ko ne seenub aj ak seenub reer bi nga xam ne duñ ko fàtte ndax nit ki am na lu ko gën a jege lool te du ko fàtte boo ko ni defee nag ne sab añ ne sab reer ne sa ko fàtte mukk te lii ngeen mu jariñ moog loolu ñooy am ci ñun kat ndax mënuñ dara nit mën muy fajoo hôpital yaa ngi centre yaa ngi taxaw nit ñëpp teg seen bët yoon yaa ngi taxaw nit ñëpp teg seen bët xool xool yeeg taataa yeeg métti métti yep ngi taxaw ngeen di defal ngi tik teg seen bët kon loolu bu amee li ci des mooy nit war naa bëgg boppam war naa bëgg révolution boppam xam boppam war naa bëgg moom boppam te ku bëgg moom sa bopp nag la ëpp ca la ngay am yaa koy wutali sa bopp ndax ku la mënal yab la wala mane ku la defarit sañal la kon bu ñu bëggee moom suñu bopp sañal suñu bopp te duñu dépendre ci waxi kenn wala xalaatu kenn dañuy góor góorlu ci li ñu am te taxaw taxaw ci suñ kem kàttan Abdou Fatah ju ñu ne ko léegi loo xam ne da koy def ci doxinu àdduna kese ngir ne da ngaa bëgg a defar boo gisee defar foo xam ne moo gën a gaaw koy def ko fa te slogan bi dafa am solo te nit ñepp dañ ko wara a déggaat bu baax ci jàngaat ko laaj lis man te di ko def fi xam muy bàkk woo xam ne bàkk la am solo woo xamante ne itam defe naa ne ñëpp dégg nañ ko te ñëpp xam nañ ko kon sëriñ bi soxna may mii toog ak bokk bii mu àndal ñi ngi lay sant bu baax sa teewaay bii di la ci gërëm bu baax li ci gën a solo bintu bi leen boot waaye itam nag di laxasaayuwaat di fas yéene ànd ak yow ci liggéey bi ànd ak yow ci liggéeyu Touba ci kanam bii te fas ko yéene fullaal nag bu baax ba nga xam ne lépp lu waay xalaat ne mën naa am fii ci dëkk bi mu am fi te mën naa nekkit nag fullaal gi rekk a ci des ndax wa ndax dañ ko daan xalaat bu njëkk naan bu amee nangam yi murit murit booy def nangam muy nangam léegi nag dugg nga ci bunt bi ba wane yoon yi ba noppi aw yoon nag bu xasee am xam am lan moo des dox rek moo des kon murit nañu góorgóorlu ñëpp te góor góor te dox ci yoon woow yi te taxaw ci sunu kem kàttan te bañ koo sàggane def ko ne sunu yitte yëpp jiital ko ci sunu yitte te wax dëgg yit defiwut te boo ko deful ci loolu def lu ko ëpp fuuf fuuf ci leneen loo xamante ne loolu mën laa bàyyi amal njëriñ mbaa boobu bu la dee amal njëriñ du amal njëriñ njëriñ lu toll ne lii nga xam ne moom la Touba Ca Kanam bi njëriñ man nag sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax la gërëm yaa ngi mboolem ñi nga ci àndal yaa mboolem ñi nga xam ne ñu ngi da ciy jàppale bàyyiwuñ kenn fàttewuñ kenn ñu ngi jéggalu bu baax ñu ngi baloo àq bu baax a baax a baax a baax sa sa sa sa jotaay bii di la jas balaa xit sa coono bi ndax fépp fu ñu koy defee ci dëkk bi nga fas fi yéene teew te lépp loo xamante ne itam Touba ci kanam mi ngi koy defee seen nañ la ca nga nekk ca digg ba nekk ca biir waaye nag sant nañ ci yàlla bu baax ndax li ñu dégg sax moom Mouhamadou Mountakha di la ko wax di ko seere ci Touba ci kanam ba ci démb ci mujj démb dañ ko wax ne ko te téeméeri carte yooyu nga daan dagg kat daggal nañ la ko téeméer wala Moustapha daggal nañ la am na ñoo xam dañ la caa bëgg aw daggal ma ci mu ne nag dangeen ngeen ma cee yërëm dong de waaye man de façon naa yéene di ko def fii ak maa ngi koy man fii ak maa ngi ko maa kon nag démb rek kon def nañ ko mi ngi ak Moustapha Dieng mbaa defe naa ne wersa nañ ko sax euh, sëñ Diop a nga doon toppatoo ci Italie moo képp ku nangu caa def rek def nañ ca ba yaakaar naa ne mat na yaakaar naa ne itam wersa nañ ko yëgal nañ ko it sëñ bi am na ci mbégte bu baax waaye yaakaaruma ne dana ko tax a bàyyi nag ci loolu yaakaaruma ko ndax moom xam na tubaa ci kanam mooy lan xam na Touba ci kanam dañuy def te xam na lim ci doon xam na taxawaay bi mu ci war a féete kon kon nag alhamdulilahi rabbil alamin démb rek dégg nañ ko ci noppam lam doon wax lépp naan bañ ba bi suñ fa daa wax ne ko léegi bis bu njëkk ba lam ca joxe nett na ko démb bañ dellu si waatee ma joxe nangam bañ dellu si ma joxe nangam dem naa léegi ba dama amoon yéene yi man kenn maag yeneen juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne yéene nañu la jël suñu tubaab te amuñu ko ma téeméeral leen ñu xamal ko ne ko daggal nañ la ko mu ne waaw ba tey loolu baax na sant naa ci waaye yaakaar naa ne du ko tax a bàyyi kon nag ñuy tamit incha allah ñun ñëpp kenn du bàyyi ñëpp dañ jàpp ñëpp dañ taxaw ñëpp dañ topp sa gannaaw te lépp loo xamante ne lu ci war a am ci dëkk bii dana fi am ci barke sëñ bi jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax waaw waaw sëñ ay sëñ ñaan na ñaan koo xam dafa bëgg ñëpp ñaan la ko nag ñëpp wax ne sëñ taxaa yàlla nañ ko ànd ak moom te yàlla na yàgg te yàlla na wér te yàlla na dund lu yàgg yàgg yàgg yàgg te lépp lu yéeneem ci dëkk bii dem yàlla na ko man yàlla na ko def yàlla na ko teewe lépp luñ ci yéenee def dem yàlla nañ ko teg ci loxoom barkeb sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ahousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ maam Thierno moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Touba Xaadimu Rasul yaag say rak sëriñ Maam Mor mi toog ak soxna Maymuna ak Cheikh Ibrahim doomi xol yi nga xam ne ñoo bokk Cheikh Mouhamadul Muntaxa di taalibe yi sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal mu ngi yëkkati kàdduy nuyoo di ko jëmee ci yéen sëriñ Habibu nag daf ma wax ne ma bul wax dara ci Touba ci kanam ndax mi Touba ci kanam mooy sëñ Muntaxa li ngay wax lépp jëmeel ma ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa te su ma daaneelee. képp kuy nituk dëgg te amoom xel danga xam ne loolu doy na ab soññee ci Touba ci kanam maa ngi siyaar baax sëriñ Boussra Samb ak sëriñ Moustapha Seck sëriñ Habibou dafa wax ne tuubaa ci kanam juróomi at la amagul daanaka moo xilaaf ak Cheikh Mouhamadul Mountakha ñoo ànd léer bi ci kanam sëriñ Touba Cheikh Sidiel Mokhtar la ganee àdduna waaye bi mu feeñee rek dañ ko teg ci loxol sëñ Muntaxa na ko demal wutal ko aw tur bi mu ko wutalee aw tur it moo ko bindal toqantal moo ko wutal it téere bu wattal moo ko wutal jàllawle dal na kon moo féete liir bi fépp daa mel ne it ci moom la nàmpe waaye muy wax ñun ñii nga xam ne ñun la yàlla jaarale tubaa ci kanam ci suñu loxo ñu xool at yi tubaa ci kanam di juddu ak at yi sëñ Muntaxa am su fekkoon ne liggéeyal Serigne Touba des ci naagu Serigne Mountakha du joxe ñaar téeméer ci Touba ci kanam ndax ci jamonoy sëriñ tubaa Cheikh Mahamadul Bachir na leen wóor ne liggéeyub jumaa ji amu ci kenn ku ci xëy te Serigne Mountakha xëyu ci bi ñuy liggéey jumaa ji fekk na ko fi mu ànd ak way juróom di liggéeyal waaye juróom muy liggéey di jox Serigne lu ñuy def ci jumaa ji kon loolu doyoon na sëkk Serigne Mountakha ab cër ci yàlla. ginaaw bu liggéeyub jumaa ji matee cheikh mahamadul basir dem àjjana lu fi cheikh Mustafa. moustapha moom cheikh mahamadul basir liggéeyal yàlla sëñ muntaxa nekk jëwriñam moo xam muy ca poroxaan moo xam muy liggéey bu sëñ Abdulahat woote la moo xam liggéey bu mën a doon sëriñ moustapha sëriñ muntaxa nekkoon jëwriñam te taxut sëñ muntaxa doyal mbooleem doomi sëriñ tubaay yi barki dem rek ñu ngi koy waxtaane ku ne xam ne soxna maymuna soxra di caatum Serigne Touba toolam yim amoon fii ci Daaru Waxaab sëñ Muntaxa mii doonoon jëwriñ ji moo daan jiite mbàcc ma jiite ndéqi ma mooy roñ gerte ga moo koy jaay mooy taxawu laylatul xadar te loolu lépp tuyaaba képp la doon wut ci sëñ Touba kon damay wax ne buñ doon wax bëgg tuyaaba mënees ne ko tudde sëñ Muntaxa koo xam ne du ci doyal teewut ginnaaw bu fi sëriñ Touba Cheikh Saalihu wàccee dem àjjana taxawaay bi sëñ Muntaxa taxaw nañ ko jàngataat ca lépp bëgg tuyaaba doo nga ko ko yóbbe kero ba muy takk laxasaayam gi tiim sëñ baara moo ko njëkk def ci doomi bàyyi tiim koo xam ne mën naa am lam la sax mage bariwut waaye gisutoo mageel ga gisoo àlliwa gisoo ab juddu sëñ Tuubaa nga gis ci moom wax na fii damaa jënd si damaa jënd si ndigal damaa jënd si ndigal dajale juróom-ñaar fukki million ak ñaar doyoon na waaye fab la xasaay ga takk ko ci ndigg la jobbal ko Serigne Touba Cheikh Mahamadou Lamine Baara dara taxutoon mu di ko def lu weesu bëgg tuyaaba du woon bëgg daraja du wogoon bëgg baat du bëgg doon dara bëgg tuyaaba rek a taxoon mu di ko def kere ba mu noppee gis Cheikh Mahamadou Lamine Baara Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar mii nee na koon semaine bu ne warlul naa la sa bopp boo xam ne doo ko bokk kenn ko taxaw guddi di ko taxawu bëccëg bëgg tuyaaba taxoon mu di ko def kere ba mu toogee di Serigne Touba. déclaration ba mu def lañ xamee ci ne moom lu mu doon wut tuyaaba la waaye bëggutoon la neen ndax wax nañu fi mu jaar ak li mu doon wute sëñ Tuubaa ba wax na ñëwatuma kenn nag ci sëñ Tuubaa ñëwatuma ci kenn daal di joxe déclaration it ne li dese Muntaxaa nag moom mooy dem taxawatut ginnaaw dama doon topp ba gisatuma ku ma topp dañ maa topp duutuma gestu damay wéy rek ku dem ma dem ku demul ma dem daal ne gees mbooloo mi ne leen Muntaxaa ñu noonu nag man maa ngi dem décision bu wér lu leer nañ daa xàll fi mu jëm wane ko Touba ci kanam gi juddoo ci moom mu wax ne damay daggal <coughs> fukki murit ak juróom-ñeent ba mu yàgg mu ne juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent <coughs> man damay ñaan ci sëñ Touba sëriñ Abibu sama ñaar téeméer yi ak ñaar téeméer ku bëgg sëñ Muntaxa yàgg fi andil ko ko fii kenn ku nekk sa ñaar téeméer di jaayante atum sëñ Muntaxa ñu dajaleen ko ko suñ borom dundal ko téeméeri at yu ma benn dut manqué nañ ma fekk fii kenn ku ne fas ko ci yow sëñ Muntaxa dund téeméeri at sëñ Muntaxa njariñam ci àdduna bindaaf yi xamuñu ko amut benn bëccëg bu muy xëy ngir jëmmi boppam te wax na lu leer nañ suma ma yalla yàlla seen yonante bi na len fa ñuk dem ci sëñ ba te bo legge suma ma amoon yalla am lepp te amoon ngërëmul sëñ Tuubaa awuma dara koku dafa jeex dafa jeex tak ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa andi ko jamono nak muy am mu jaddit dama xone khalifa yi khalifa yi sëriñ bu ne ak na nga ñewé waye am ex am experience. sëñ Muntaxa daf ko def ci yoon wi daf ci am expérience ki doon way léegi wax na ko jàngewut oto ci garage yi daf koo jàng ciy këyit ba xam moteur bi xam la ca nekk mu jàng conduire ba man ko war oto di ko dawal nag xàmmee feu rouge yi ak virage yi xam fi am montagne am doj buñ ko bàyyee woon ak xelam boppam waat naa ci yàlla ne dana yóbbu yoon wi fu kenn mbooleem ñi ne ci yoon yi moo leen ëppum xel bu dee xelum àdduna rek moo nu ko ëpp fuuf te bu dee xam-xam ku ko raw néewu fi te it aw fit sëñ Muntaxa du dellu ginnaaw na doon rek loolu lislaam gërëm waaye bis bu ñu bëggee ñaaj lislaam danañ xam ne kooku mooy gaynde feeñ na ci résultat yi fi jaar yépp bi mu fi toogee rek suñ borom da ko boolee xat-xati àdduna seytaane di ko sànni ay fiir waaye muy muy muy teggi fiir yi ndànk di ko tegalaat seytaane ciy tànkam ci du ko yëg ñuy gis fiir yi di jàpp seytaane moom muy teggi fiir yi bañ wóor leen kii du la sëñ laa Lahad waxoon ne gumba guy fiir njàccaar ci toolu dugub moo leen dal fiir guñ ko fiiral teggi na ko ndànk tegal ko fa ñuy jaar fa ñuy teggi moom doxi soxlaam te wax na lu leer nañ maslaa ma indi fi ma nekk waaye tëlu ma dara maslaa rek kon nag kooku bu fekkee ne liggéey bii daa jóg ne ci aw sasam mu fasiyene defaral serigne touba dara ju melni war nañ ko defaral dara ji bu noppé dekk bu nuroog daara jee bokk yi ndax touba li la yeyo serigne touba ñaanal ko bopam boroomam ba yalla may ko ci matlabul fawzaini sëñ laa dox ñaan gi kenn ku ne da ngay xol lan ci nga dox jëm ci sun borom ndimbalam waye ñaan gi lu soti ba noppi la bam ne dama bëgg am ndox dañoo gasi ay forage ba mu ne damaa bëgg ñu musal ko ci ay caay-caay dañoo wuti ay gendarme indi ci dëkk bi dafay am loo xam ne nit ki day dox jëm ci ndax cërub àdduna la yàlla du wàcce ay malaayika man na wax na ko léegi yàlla yàlla guddal soo fan ni nga def rekk la sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha ku ne xam ne ne bi fi ay kilifaam nekkee musta jéem a doon kenn musta jéem a bëgg dara musta jéem mel nen daa takk fa laxasaay ram topp ci seen ginnaaw waaye tey jii xam ne toppe la muy jariñ waaye yow nii rek la bul bëgg dara nee naa la léegi yéen amatu leen la daloon waa kër sëñ Fallou dal na leen sëñ Fallou daa demoon moom yàggam ne duutuma kenn man sax awma waaye yéen it foofu la sëñ Muntaxa toll moom ci boppam amatut ginnaaw sëñ Muntaxa amul nag yéen mun leen am sëñ Touba rek am loolu làmb ci sëñ Muntaxa rek sëñ Touba la amul dara lu mu leen di waajalal waxoon na ci làmmiñu bopp na sama doom yi sax sëñ Tuubaa laay xool ci ñoom kon ñëpp sëñ Tuubaa lañu war a xool ci moom kon nag dëkk bii soxna Maymuna lii nga def ci daaru Tanzil ngir jàppale sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa ndax kat démb dégg naa sëñ Cheikh wax ko na ko lii ngay wax ne mbokkum nit ñi nga ba nga doonee sëñ Muntaxa moom sëñ Basiiru amoon bokk waaye bi nga doonee sëñ bokkutoo kenn dara ndax yaay sëñ Touba waaye lii ngay jàppalee sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sëñ Touba te bëgg dëkkub sañ tubaab bi mel ni mu mel nga ñëw ne naa taxawal fii benn cellule bu bokk ci Touba ci kanam dama ne Daaru Tanzil moom amatuñu lay ndax kat ku xool mbedd yi mbedd mu lëndëm rek jàppal ne ñaar téeméer yee matagut waaye bu matee moom mbedd dutu lëndëm Touba ci kanam moom fu mu gont fu ne moo gën fu mu gontul fu ngeen seen mu leer ñaar téeméer yaa bu ci génn sa bopp poste de santé boo seen ñaar téeméer yaa bu ci génn sa bopp godron boo seen ñaar téeméer bu ci génn sa bopp taataa boo seen mu sakk ñaar téeméer yaa bu ci génne sa bopp waaye nag boo seenee loolu lépp nag ba mu àgg xool na sa ñaar téeméer nekku ca xamal ne maa ngi perte ndax yiwu àdduna ak woowu alaaxira la campagne électorale lañ toll nit ñi xëccoo ay maire yi fii la ñuy taxaw dig la ab poste de santé dig la lumière dig la am ndox te loolu 1960 ba fi ne ñu la koy dig ndax doo ko fa bàyyi dajale sa ñaar téeméer defal sa bopp loola ba fi mu ne politicien bu mës a ñëw Touba nee na bu ma gañee dëkk bi dana leer yoon yi dana bari poste de santé yi dana bari bañ ko so diggee ak léegi lu fi defagul Touba ci kanam juróomi at la amagoon defar juróom benn poste de santé defar daanaka fukki kilomètre ci tëli li muy ër bi tisaaroo te loolu dara wëralu ko lu weesu dagg sunu ñaar téeméer yii kon nag képp koo xam ne bëgg nga Touba ñaan boobu sëñ Touba ñaan ne damaa bëgg sama dëkk bi mel ne madinatul munawwara ak makkatal mukarrama ku bëgg a bokk ci ñaan gi da ngay joxe si ñaar téeméer du batil, du dar sair la lamb sa pos génn ñaar témèr rek la bo joxé wul ñaar témèr jënd connexion ñaar témèr bis bu né bis bu né nga dag nga jënd connexion ñaar témèr bis bu né nga jënd crédit bis bu né nga mayé ñaar témèr yo xamanténi bi xamoo ki ngi ko may daanaka lool nak saxalal señ touba wër wu dé ñaar témèr su ko défé million ngay mourid